la dafa mel ni agsi nañ bisaan ñu wàcc rek situation bi avec euh, le commandant mel ni moo nekk ne di ñëw ni ñu koy gisee ci image yi chers ñu wàcc waxtaan ak moom ci situation fii ci Kër Massar

faire tour là pour voir un peu la situation globalement dans pratiquement tout le département pour voir un peu le dispositif mais également s'enquérir de la situation et du respect de l'effectivité de la mesure euh, prise par euh, son excellence le président de la République donc euh, je suis avec euh, quelques organes de presse vous pouvez leur livrer ce que vous avez constaté sur le terrain, n'est-ce pas? Ok, je suis le capitaine Ibrahima Sissé, donc commandant l'escadron de Diamniadio. Donc nous intervenons ici euh, à Keur Massar dans le cadre de l'application des mesures euh, du couvre-feu. Donc comme vous le savez, c'est des mesures qui ont été décrétées pour justement limiter la propagation de la propagation du, du, du virus. Et de ce point de vue-là, nous sommes là. Donc euh, c'est le euh, le quatrième jour Donc euh, pour Kermassar, bon, ça se passe bien. Dans l'ensemble, il y a un dispositif qui est mis en place, comme vous voir à travers l'événement. Donc c'est un dispositif à la fois statique et mobile. Donc pourquoi statique Parce que déjà c'était un point de contrôle. Et c'est un passage obligé pour euh, les véhicules venant à Dakar et également ceux qui quittent les banlieues. Donc il y a un dispositif de contrôle qui est là, statique, fixe. Maintenant, le dispositif mobile, des patrouilles sont organisées à travers les différents quartiers de Kermossar, mais également de Sangalkam, de Bambilor et tout le département de Rufisque, notamment la, la partie concernant la gendarmerie. Euh, Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont été interpellées, enfin, depuis hier, euh, dans le cadre du non-respect des mesures de couvre-feu. Donc c'est des gens, c'est des jeunes généralement, qui à travers euh, les manifestations dont vous à travers les Voilà, donc ils prennent ça sous forme de jeu, alors que le but, c'est, pas un jeu. c'est de respecter les, mesures. En tout cas, de manière générale, c'est ce que nous sommes en train de faire ici depuis le début du, du, euh, Et euh, se passe bien. Et nous invitons également les gens à respecter les mesures et à se dire que c'est une question qui concerne tout le monde. Voilà, pas seulement les forces de l'ordre qui sont là, mais c'est une question nationale. tout le monde doit prendre Euh, limiter, comme l'a dit les, les autorités, la, la, la, la propagation du, du, du, virus. Voilà, donc voilà de manière... Voilà, moi, je suis capitaine Ibrahim Sissé, donc commandant l'escadron de, de Diamniadio, de la gendarmerie nationale. Donc nous intervenons ma Kermassar dans le cadre de l'application des mesures du couvre-feu, comme nous l'avons dit en qui, qui, euh, qui euh, français. Donc, bantoir ci Olof. Euh, dañ fi nekk tey pour sàmmanteeg ndigal yi suñu kilifa jël lu waral couvre-feu bi maanaam euh, nit ñi war ñoo euh, dem dëkk dikk bi ak ñuy war a doxantu yëpp dañ ko dañ dañ koy dakkal diggante juróom-benn waxtu ba 5 heures du matin donc ci loolu lañ nekk fii léegi ñun ñoo fi nekk tey donc tey boo gisee suñu dispositif fi dañoo am ñoo xam ne dañuy taxaw di saytu oto yi ak tamit ñoo xam ne dañoo taxaw di naan nit ñi waroo leen euh, doxantu ba waxtu bii nii am ñoo xam ne nag ci oto yi la ñuy nekk ñoom. ñoom seen i seeni i seen role seen mission mooy dugg ci dëkk bi di xool ba xam couvre-feu bi respecté nañ ko ci biir koñ yi ak ci biir euh, gox-goxaan yi. voilà donc loolu lañ nekk yi def depuis lors ñu ngi koy def biir Kër Massar daanaka commandant de bi moo nekk nii euh, ñi nga ak moom travers renseignement yi ngi jot ci xale yoo xam ne dañuy dugg ci koñ bi di di lax ay pneu wala en tout di di di def comme ñeneen ñi ngi defee mais boo gisee depuis lors sa se passe bien on la là sur le terrain ñi ngi ak. Euh, Euh, ñu ngi jël suñu matuwaay daal. Euh, waaw comprendre nañ ko et dañ ko war a comprendre tamit wala ndax boo xoolee état d'urgence bi du nekk nekkul loo xam ne en tout cas daf ñu dafa ñu euh, dañ ko war a def nii non non dañ ko def ngir sàmmanteeg ndigal yu ñu jël te loolu boo gisee ñu jël ko c'est pour ñu mën a limiter wala faagaagaag comment dirais-je contamination bu bu coronavirus bi donc ce qui dañ ko war a def voilà. voilà comme ni ngeen ko gisee ñu ngi nekkoon nag euh, ki nga xamante ne mooy euh, géré brigade euh, gendarmerie bu Kër Massar. d'accord ñu ngi signalé que ni de la gendarmerie. le colonel, de la gendarmerie au niveau de la région de Dakar, le colonel commandant de la gendarmerie. Donc il est venu faire comme vous l'appelez Contrôle. contrôle. du dispositif quoi. Voilà. voilà. Euh, colonel Ivoach, commandant la Légion de gendarmerie Ouest. Comme vous le savez, c'est la Légion qui coiffe euh, la région de Dakar. naturellement, euh, il important de rappeler un peu le contexte euh, d'engagement de nos unités. Comme vous le savez, depuis mars, euh, le Sénégal a été éprouvé par la pandémie de la Covid-19, euh, qui a valu la mise en place euh, ou la prise en compte de mesures euh, assez fortes pour éviter la propagation de la Covid-19 ici au Sénégal. Donc un état d'urgence assorti donc pour a de, de, décrété pendant la première phase. Euh, donc durant presque six mois jusqu'au mois de septembre, euh, toutes les forces de sécurité étaient engagées euh, pour faire respecter les mesures d'interdiction qui étaient prises, car il s'agissait de questions de sécurité nationale. Et euh, au mois d'août, naturellement, ces mesures ont été levées, mais compte tenu euh, de le contexte actuel, c'est-à-dire la reprise en tout cas de la propagation de la maladie au Sénégal, le 5 janvier dernier, euh, les hautes autorités de l'État ont jugé nécessaire encore de renforcer les mesures hein, pour éviter, en tout cas, que la maladie gagne encore le territoire. Euh, et comme à l'accoutumée, la gendarmerie encore a pris les choses en compte, au même titre que les autres forces de sécurité, euh, pour mettre toutes les synergies nécessaires afin, en tout cas, de limiter la propagation de la Covid-19 ici au Sénégal. Euh, naturellement, ce sont des hommes et du matériel qui est déployé. Euh, à ce jour, nous, nous sommes à 889 éléments, y compris les unités organiques comme les renforts, euh, disséminés sur l'ensemble de la circonscription, en tout cas de la région de Dakar, dans la zone euh, concernant la gendarmerie, hein, pour pouvoir faire respecter ces mesures à tout prix. Naturellement, il y a eu des velléités Euh, d'opposition au départ, euh, mais sans compter sur en tout cas la détermination de toutes les forces pour faire respecter ces mesures, quoi qu'il en soit, quoi qu'il va advienne. C'est des mesures puissantes, c'est-à-dire la région de Dakar et la région de Thiès. Donc, quoi qu'il en soit, il fallait qu'on fasse respecter ces mesures. D'où la, la, nécessité pour l'ensemble des, des, autorités, qu'il s'agisse des autorités administratives, mais des autorités militaires aussi, euh, pour conjuguer leurs efforts, renforcer la coordination, la communication, pour pouvoir en tout cas réussir la mission qui nous a été assignée. Naturellement, on doit être sur le terrain au même titre que nos hommes, ce qui a valu en tout cas la croisée des chemins avec l'autorité administrative, avec laquelle nous avons en tout cas une parfaite collaboration, qui est un élément fort hein, pour en tout cas remplir la mission qui nous a été assignée. Globalement, la situation est devenue quand même très calme. Après, bon, le premier jour, c'était une surprise générale. Le deuxième jour, on a pris les choses en compte. Et le troisième jour, euh, la situation est totalement maîtrisée. À ce jour, j'ai fait le tour du dispositif jusqu'à ici. Aucune manifestation n'a été en tout cas notée hein, euh, sur l'étendue de la circonscription. Et c'est un dispositif qui sera maintenu euh, jusqu'au moment où en tout cas les choses vont revenir à la normale. Euh, salaamaaleykum man maay colonel Ibou Wathie man maa yilif gendarme yi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci région de Dakar Euh, comme ni ngeen ko xamee ñu ngi koy wooyee légion ouest euh, bu ma fàttalee un peu euh, ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mars li ñuy wax coronavirus ou en tout cas Covid 19 dafa xawoon en tout cas gagné réew yi yëpp rawatina fi Sénégal loolu poussé woon nag autorités yi ñu jël ay matuwaay jël ay mesures yuy permettre en tout cas ñu éviter mu gën a law. ñu koy wax état d'urgence euh, boo xam ne dafa ànd ak couvre loolu nekkoon mesure boo xam ne en tout cas euh, dafa ànd ak ay restrictions euh, en tout cas jéem a wàññi un déplacement nit ñi ci biir biir dëkk bi ñu def ko dem ba ci digg bi affaire bi wàññeeku ah naturellement pour ñu mën a bàyyiwaat nit ñi jëlu seen activité ñu lever mesure yooyu mais bu ñu xoolaatee xam ne aussi bon peut-être feebar bi dafa dellu siwaat mois de janvier même autorité jëlaat encore ay motuwaay la nga xam ne moom lañ defoon ba maîtriser situation bi ñu tegaat ko euh, pour gën a maîtriser encore li nga xam ne mooy wallante bi ci biir dëkk bi. loolu nag bu am bu mu amee euh, ñun gendarmerie comme yeneen force yi aussi dañu boolewaat suñu doole euh, li ñu am ci ay moyens ñu génne ko teg ko ci dëkk bi pour mesures yi nga xam ne moom lañ jël ñu mën ko respecter ci suñu njëriñ mais ci njëriñu réew mi aussi. parce que feebar bi comme li ma koy waxee rek ku ko jël te da nga ko yóbbu bu fekkee dafa faagaagal dëkk bi aussi ñun ñëpp ñoo koy sentir donc euh, dafay laaj ñu bàyyi suñu yiite ah, amatuñu nelaw rien que pour en tout cas mun a sauver suñu réew ci li nga xam ne mooy mooy mbas mi. voilà donc euh, boo ko ramassé daal loolu laa amoon lu ma ci wax ñu ngi nii ci terrain bi nag euh, ñun autorité militaire yi mais aussi autorité administrative yi moo waral te ñu daje fii ci terrain bi ñoom aussi ñu def seen liggéey mais ñun aussi ñu def suñu liggéey. parce que suñu ndaw ñoo nekk ci terrain bi foog ñu gunge leen ci li nga xam ne moom moom la ñuy def ci àll bi wasalaam. merci beaucoup.